waaye kii ndaanal la ci mbir mi waay kon ñu dégloondoo ko. te yéen a fi maa ngi fi. waaw. danaa ànd ak yéen dem ba géej. ban géej. maanaam danañ dem ba Soumbédioune. Soumbédioune waaw. ma xar géej gi. mu ne. ma xar géej gi. yaa Cheikhul Ibrahima Baba Lamine Diassé. waaw mais kun kànd mi day kaf wala. xar géej gi la wax de. waaw da ngay wax rek. loolu moom mënoo ko. billaahi lazi wax nii de. déet te ngaa bañ a waat. da ngay fen. ma wax mu nan de toppandoo yonent yàlla Moussa. lu yonent yàlla Moussa defoon mën naa ko. man nag tey jii laa waaru dëgg dëgg nag. lii da lañ naan njuumanoo a wele. xam nga ne amoo benn respect ci sénégalais yi. avant de parler il faut référer Ndeye Sire. non man mom Sénégal vraiment dafa am ay nit yo xamné ne man mënu ma leen comprendre. dañoo dëkkaale ay dëmm. mais am ñi fi doon lek lu léwul bam jaral leen sax ñuy soppi seen der. ña nga safara ñi ngi ñàpp seen mam bu baax. xana dit kay. suba ngoon guddeeg bëccëg ña nga jaxanama. ferme-moi. pour man bal nañ leen sax. ken balu leen ko te duñ leen ko bal tay te duñ leen ko bal ëllëg. yow nak nga xéssal ba wéx tal teg si monte say lanti caméra yi tim la ngay rafetati rek nga nan mën nga ko wax yomal am na ñoo sawar lañ jëm comme ñan lu yontu yàlla Moussa defoon mën naa kat nga ndeyam sawara <laughs> waa kan mi kan li wax dafa ëpp wax dëgg fa yàlla non loolu sax dafa logique frère est-ce que dégg nga wax ci géej gi. waaw loolu gis naa ko waaw. waaw doo si wax sa xalaat boobu frère. Euh, moo ñu dugg si gaal yi wala. waaye jëleen concentré wu ndax ngeen xam actualité yi ci dëkk bi. dëgg du rombi nopp. ma ne waay waay ay fen sax day am harmonie waaye kii tey ñu ko jox noa kii ndax mu bàyyi duuli. ah de waay de. <laughs> waaye chloroquine ak novalquine lan mooy seen différence en oustaz Iran. ah man nga koy laaj. waay waay boo ma ko waxul sa morom wax ma ko. chloroquine en français c'est novalquine. point d'interrogation. <laughs> billahi lazi laa ilaha illa huwa laa lay wax nii de. buñ demee ma xar géej yaa ma la fen. lu yontu yàlla Moussa defoon mën naa ko. Serigne Mouniru. li kii di wax ay fan yu la. man moom xam naa dama mujj dem Gambie rek toog fa ko. dem Gambie moom du solution wax dëgg fa suuf. xanaa kay ñu la xam li ci Kounkandé wax. non loolu loolu. gis naan wax ji yàqu la. mais maman Selbé Kounkandé mii dafa mel ni caaxaanul de. loolu waxu la. ah comme que waxi la xaaral ma laaj ko ban jour la fas yéenee xar géej gi. bisu tam maanaam si takkusaan. waaw. ma xar géej gi. jouru tam xarit jouru tam xarit moom instant bi est war na fee sori mais aujourd'hui c'est le le 15 15 mois 95. ferme-moi. hey ma ne ku kane dat bi dafa sori wàññi ko. Hmm. moo dox seen diggante. adduna bi ba leen yàqante xaar ko. awa baax na. misbaa xar géej nga wax. moom bu nekkee da nga koy jaawale xali ndox yoon nga wax ñu teel nekk na dat boo xam kenn du ko fàtte bis boo xar géej Sénégal te nga bàyyi xeesal bi nag. dëgg du romb nopp. bu leen weesoo man damay laaj. loy laaj. limay laaj moy metti El Hadji ak Birima est ce que ñoom ñaar dinañ soppé lool lay ñaan yalla way gëwuma oh 6500 yow kay mel mënut ta nek rek. waxu mënul nek dama ni gëwuma ko. tey si kala na. man de metti mi ma gis ak Birima buñ soppé ko dina ma bet trop. ana ay wax day jeex. bu ko defé gay ñu sétan vidéo bi te ñëwaat. du ma la manquer de respect. Tu ma la de respect. du ma la manqué de mag bu ñàkk fayda la non rek. mais c'est honte. moo raw bëri nawet day même rek. on peut ta gueule toi. xam nga man Zale lan laa mënta comprendre maître El Hadji boo ko woowee ci débat wu la paix mu indi la ay. am na wala amul. am na kay. ba pare test di la dépassé. donc xoko xam nga amna intention bu mu jëlo si amna intention bu mu jëloon te intention bi mu jël kilifa xalat ko jël. ñun lool lañu mëna wax nak ñun lool lañu gis. onze mille vraiment nak maître war nga soppé li rek la nak du dara. yo débat bo xam ne heure boo wala nga génn da sotti. bi gaay commenter ñi la sagandé ëpp ñi la tag onze oh, kon nag jot na maître El Hadj Diouf rek la ndaxte moomuñu. action bi ni la démé man de li la amul lu ma ci wax. li rek la nak du dara. man de li la wax. mbaa yi ni loolu ngeen wax. lii nañu mën a wax Ndoye Ndiaye. asalaamaaleykum wa rahmatulaahi wa barakaatu. bu ko defee ko defee nag sama gars yi tey gis ngeen fu ma génn tey moom dama sañ sa quoi dama yàngi euh, sama benn bro moom fi génn ñu naan ko Jila Sob kon boog sama gars yi képp koo xam nga ci tenue bu mel nii quoi. Voilà, demal nga de Gila numéro téléphone 77 711 11 11 Instagram am Gila sob vous gars vous ngeen numéro téléphone quoi Gila mon frère merci beaucoup.